Ce budget, c'est également euh, le principal poste justificatif de la dette au Sénégal. Rien que Bodjele Terbi, avec autoroute Padoua, Djamnyadjo, AIBD, AIBD Mbour, et Ila Touba, nous avons 2036 milliards, soit 25% de l'encours de la dette actuelle. Si on compare les programmes, c'est pour corriger les déséquilibres parce que ñëpp xam nañ ni biir réew dañ leen fu fa amul presque benn tali bu leen jox ci cadre PUDC ak PUMA tuuti trop par rapport ak li nga ñu les grandes infrastructures de Dakar loolu yëpp nag day traduire échelle de priorité ne imposer parce que je suis désolé de le dire duñu xaritu Sénégal FMI du xaritu Sénégal les bailleurs bilatéraux duñu xaritu Sénégal c'est des gens qui gèrent des intérêts et am nañu seen fulla pour défendre intérêt yooyu bu ñu lay jox sa xaliss seen xaalis dañu lay wax fuñu bëgg nga duggal ko pour mu mun leen jëriñ motax infrastructure yi ñu jiital ko ci éducation ci santé ci hydraulique ci agriculture japp nañ ni yoy investissement bi du gaaw ñëw bu ñu la joxee ne la joxal suñuy entreprise marché yi exonéré leen impôt et taxe ba pare ñu am ay facilités yoo xam ne dinañ mën a récupérer waat seen investissement bàyyi fi bor bi ak intérêt yi ñu koy fay ñett rek ci projet wane na ko bu njëkk mooy terre TER bi biñ cool yi amee dañ leen ne terre bi dépassé na 568 milliards yi ñu waxoon ñu ne loolu la ma bind question écrite defe naa mon cher collègue Abdoulaye Daouda Diallo était ministre il m'a répondu mais confirmez on a dépassé 700 milliards mais nous ne justifié que les taxes mais les taxes c'est des éléments du contrat les contrats sont libellés hors taxes et TTC si vous le coût du terre première phase break rek dépassé na 1000 milliards vous tous les contrats que j'ai les contrat les montants initiaux les avenants transferme les avenants transconditionnels terre bi les 1000 milliards. deuxième élément bi muy les délais de livraison du terre. bi ngeen koy lancé en 2016 da ngeen jox rendez-vous sénégalais euh, au mois de janvier 2019 janvier 2019 bi ngeen ñëwee da terre inauguré TER vous bu Macky Sall duggé ci TER bi dem jam ñaajo bu ne leen TER bi du daw ak mois de juin ngeen joxaat rendez-vous mois de juin ne li ko waral mooy da ngeen def test six mois juin boobu ngeen joxewaat novembre novembre passé na jusqu'à présent pas de terre. loolu wane na ni gouvernance boo xam ne dañ koy lal te de mauvaises informations au peuple loolu daxalul ab réew ñetteel bi mooy l'autoroute à péage monsieur le ministre dama bëgg xam ndax est-ce que lan un problème parce que un ouvrage boo 354 milliards FH def 65 milliards exclusivité pour 30 ans. merci merci bien.